taxawaayu commune Jaxaay man la maire Mor Sarr ba jiite ko mbas mi bi mu duggee Sénégal ak léegi ñaari fan ci weeru mars ñun ñeenti fan ci weeru mars lañ jógoon taxaw dugg ci terrain bi li njëkk a def mooy xamal nit ñi li yàqu-yàqu bi nga xam ne moom la indi ci àdduna bi li mu indi Sénégal sensibilisé nit ñi lépp li ñu am ci moyen dem fekk nit ñi muy masque gel thermoflash dund

surtout ak bureau municipal bi ànd ci nag ak jeunesse bi parce que ASC yi fi nekk yëpp que dirigé di seen président ASC muy John 11 muy jaane ak ASC yëpp ànd ci sensibilisation yi ànd ak ñoom ci garage yi ci ñëpp leeral leen wax leen doog ànd ak ñoom li ñuy joxe ak li ñuy dimbali ñu ànd ñoom defandoo ko ñun ñëpp kon taxawaayu jaxaay euh, jóg na ci. lépp loo xam ne ay moyens la pour dimbali askanam mais lépp loo xam ne war na leen ko xamal ca lañ suñ doole toll ña ngi ca boobaak léegi tegguñ suñ tànk te buñ koy def euh, son excellence président Macky Sall moo taxaw ci kanam ñu accompagner ko ànd ak dañuy topp ci gouvernement bi ah wax dëgg yàlla euh, yëg na ko waaye nag luñ ko yëg-yëg terewul ndax nag ku taxaw ci àdduna bi ñu toll nii nga xam ne ñu ëpp puissance ci àdduna ñoo ko yëg waxuma la ak ñun kon nag lii ñëpp yëg nañ ko moo tax ñu jógee mais commune bi yëg na ko baax mais terewul nag bu fay salaire jotee maanaam lépp li nga xam ne ñu ngi ko def ñu ngi koy def nañ ko daan defee da daan dugg nag li muy dugg manqué na mais terewul ñu ñu yokk suñu jotaay tax si war a nekk lu ñu war a mën a uti uti ko pour mën a gérer situation bi ba fii ma tax di ko wax ñu góorgóorlu suñu kamtulaay kàttan suñu borom mi ngi dimbali waaye nag takk nañ suñu digg. maanaam soxna yi tamit takk nañ seen sër ñu àndandoo terrain ak responsable yi ak kilifa ndax koo jaboot ku ko dimbali si njabootam ndax boo xoolee boo xoolee tey jii ceeb bi état bi joxee maanaam dund bi loolu man kuñ ko defal sa commune yow lañ dimbali te loolu état bi def na ko fii sama commune moom wax dëgg yàlla jàppale nañu bu baax te dund bi ñu fi indi woon di ko gërëmee euh, le ministre Mansour Faye fii ci commune Jaxaay det li nga xam ne waxoon nañ ko jox nañu ko séddal nañ ko moom jeex am benn coow. bañ naa ko ba moo tax tamit commune bi jóg na góorgóorlu moom tamit taxaw def jënd moom tamit fi ñu moom laa bëgg a séddale ni fekk ci askan wi jox leen encore comme état bi moom joxe na te ñun tamit ñooy état ñun ñooy askan wi fekk la ñoom tamit liñ suñu doole atam ñu jox leen ko. fii ma taxaw di wax ak yow de ceeb bii ngay gis maire Jaxaay moom dana ko séddale te jënd naa lu ëpp lu bon bon bon bon juróom fukki junni masque jënd naa ay thermoflash jënd naa sucre dimbal naa daara yi dimbali naa poste santé yi te lépp lu ma la wax fi ba fii ma taxaw di wax yow ay pomp sax jën naa ko war leen koo jox ci bari jox naa leen kon mairie Jaxaay moom mbas mi duggee ba léegi tey la gën a taxaw tey jii lañ gën a taxaw kon ne lañ doon def yàlla nag mooy dimbali mu ngi am boor bu nekk daanaka dina fi duggoon na fi waaye yàlla ngi dimbali ñu ngi takk suñu tànk sër ak suñu tubéy di góorgóorlu loolu tamit askan wi moo ñu ci jàppale ndax ñoom comprendre nañ lii lu doy waar la ñoom tamit dégg nañ loolu ba vraiment ñu ngi ciy góorgóorlu te respecté mesures yi loolu nag laa leen di ñu gën a topp loolu ndax liikat bu yàggee rek fañ jëm baaxul moo tax ñu ngi ciy góorgóorlu. taxawaay bi mooy woo boroom kër yi boroom kër yi muy góor ñi muy soxna yi ñu waxtaan ak gën a waxtaan ak njaboot gi ndax ñoom lu ñu mën a wax def ñoom tamit ñoo yëlif kili kër yi kenn ku ne sa bu kër nga yee sa njaboot ndax xale yi mën nañu dem ci mbedd mi mais mag ñi ñoo ne ci kër yi te mag ñooy doxal kër yi wala moo ko ñooy wéttali njaboot gi kon borom kër yi nañu yee gën a waxtaan ak njaboot gi comme ni ko état bi defee comme ni ko maire yi defee njaboot gi tamit xam ne seeni parents la ñu am te bu leen ñàkk dañuy wét dañu gën a góorgóorlu respecté de masque yi ci jox benn kuñ ci jox nga respecté ko ku amul te gisuma ku wërta am ak li ñuy dolliwaat ni mënut a nekk mais nañ ko respecté rek waxtaan xam ne port de masque yi gel yi ak madaar yi même boo ko nga am sa savon di laxas say loxo loolu am na solo bokk na ci luy xeex ak jàngoro ji ñun li doon suñu wàll ci loolu li daan li ñu daan def ñu def fii ci département Rufisque commune Jaxaay te commune Jaxaay nekk ci biir parcelle ñàkkurop ba fii ma taxaw di wax ak yow ci wàllu éducation yàlla dimbal nañu ba fii ma taxaw di ko wax defe naa boo ko vérifié incha allah rabbi di nga gis ne commune Jaxaay moom moo ci jël première ci wàllu éducation. lañ daan def ak inspecteur di ko def ak IA ci seen diggal ak enseignants yi ak la présidente bi jiite jeunesse euh, éducation ñu ngi commission boobu ñu ngi def li ñu war a def lépp loo xam ne commune bi warloo na ko ak éducation waxuma la mbas mi rek de mais biñ ma installé ba léegi lépp lu ma warloo ñoom def naa ci fourniture scolaire tabax ay salle de classe il leen ci ay examen lii la commune da ko def donc mas gis ko la commune war ci examen defu ko 4 avril ak commune dafa mas au présent def ci li mu politique mais c'est beaucoup ko vérifié waaw li ma leen di wax mooy gannaaw bi ñu sante yàlla maa ngi leen di gërëm di leen woo ci ñu bokk ndey bokk baay respecté mesures yi nga xam ne moom man ku ma tooñ baal naa la koo xam ne yaa ma tooñ maa ngi lay maa la tooñ maa ngi lay jégalu di ñaan yàlla ñu fekk kaan yu bari di ñaanal son excellence président Macky sal yàlla gën ko yokk doole yokk ko daraja jàppale ko jàppale kilifay aada yi Sénégal am paix Sénégal am jàmm ñu bokk ndey bokk baay xam ne Sénégal unité moo koy defar. sama conseil municipal maa ngi leen di gërëm di gërëm ñëpp asalaamaaleykum jërë ngeen jëf.